lii waraloon woote bi tey mooy def li nga xam ne comme niñ ko tàmma di defee ci commune de Rufisque Ouest mooy yëkki subvention jox ko ASC yi nga xam ne ñoo ci commune bi mu nekk loo xam ne mu nekk loo xam monsieur le maire bokk na si ñi ko initié te doon ko doxal at bu nekk saa bu waxtu bu jotee yaakaar naa ne taxawaay bi ñuy taxaw tey di ko taxawee comme maire par intérim nekkoon adjoint maire bokk ci bureau municipal bu monsieur le maire des lépp loo xam ne mu ngi ko doon doxal rek si lañ fas yéene teg suñu tànk yeggali ko. perspective yi ñu jëm mooy tey on dans le cadre de l'éducation de la formation la commune envisage de faire des formations pour les entraîneurs afin de les actualiser de diplôme d'État pour qu'ils puissent s'insérer dans la fonction publique. bésu tey bii li mu ñuy fàttali mooy ki ñu doon toogandool ki ñu doon wax ñuy def ki doon def ñuy gis kooku tey bu ñu wanee ginnaaw. si diir bu gàtt dañu naan li ñu def nii lu ñu mënula bañ a def la ndax bu ñu sañoon moom moo koy teewe ñu toog ci ginnaaw ginnaaw bi suñu borom bi dogalee lu mu dogal dañu koy ñaanal te di ñaan yàlla lépp loo xam ne mi ngi ko noonu yéene di ko def pour commune bi ñu teg si suñu tànk doxal ko. waaw ñoo ngi sant ñëpp di sant bureau municipal seen teewaay di sant les conseils municipaux ñii njëw ak ñii njëwul ñëpp. di gërëm président zone bi ASCI, la presse tout le monde ñoo ngi sant ñep di leen wax yalla nañu yalla may une bonne saison té ñu jouer ci fair play parce que commune bi amna na ku fi nekk nekk modérateur nekk régulateur di doxal jamm si ça bu problème amé ñu xamné tay tey na li nga xamné mom lañu doon wax li mu ñu doon inciter non violence moment bi lañu ñu war ci image am ba dara bu mu ñaaw ben problème bu mu am lepp sedd euh, président Euh, Diop am benn message bu mu lancé mu ne ASC yi nga xam ne dañoo nekk ci commune bi moom sas na leen ku nekk jël programme li nga xam ne école la li nga xam ne post santé la ñu war ko béy comme dañu jëm ci rentrée des classes ñoom man maa ngi leen di ñaax ñu def seen programme par rapport ak école yi mairie bi na leen accompagne pour ñu désherber désinfecter les classes loolu moo nekkoon kàddu yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp